maa ngi gërëm waa commune de Ronkh bu ñu ma tànnaatee defaat ma defaat ma seen euh, kanam mairie euh, c'est ma ma kii ma sama première sortie à une orga à un organe de presse donc dama leen di gërëm di leen sant di ne leen effectivement yëg nañ li ñu def donc liggéey baa ngi sunu camp léegi lan lañ war a def pour que liggéey bi gën a gën a baax euh, gannaaw loolu tey dañ fi teewu tey pour réceptionner ay chantier dëkk yi xam ne amuñu woon ndox ñu may war a may am ndox. de moo di Gawdiyol moo di non moo di giladu de di Wurlisa moo di bi ak jawar def na bi bu parce que amoon na feebar bi Covid 19 bi tey la ñu pour xool waaw seen xel dal na def kon loolu parce que du lu tuuti lu nga xam 94 euh, euh, millions koku ku la ko may jàppale la kooku doon ñoom ñu jappalé ba ñu am programme boobu ñu mun ko réaliser. gannaaw loolu tam aussi comme ñun suñu digënt yàgg euh, de bientôt léegi mat ñaar fukkat euh buy paré rek ñu sombu benen projet kon projet bi ti jeexan tey ñu ngi wara a sumbaat beneen projet ci 2022 bi boobu mooy projet fexé ba ñu am ndox ci dëkk bu ñu tudd Gawdiyool ak Gawdiyool 2 ak fouy fofu nak mu jafé parce que il faut ñu créer une structure de traitement parce que dëkk dañu xaw ruqee bokkul ak dëkk yi mu xam ne bu comme bi jëlee ndaw kasak mais fee dafa jafé bon lolu rek pour ñaari dëkk yooyu rek am programme parce que 54 millions la euh, déjà paré nañu pour financer ko pour ñu mun ko réaliser pour que fi ak at bi jeex wala en début d'année 2023 programme ba wara mëna sotti kon lolu ñu leen di ci gërëm ñom ci disponibilité bëgg and ak ñun benen bi bu ci wax modi rek ñun dañu gëm ni ndox mi d'abord même bu nekkul compétence transféré suñu besoin population nous on n'a pas de limite, on n'a pas de compétence tout ce qui est besoin de la communauté ñu mun ko def dañ ko liggéey donc nous, ñu jàppale appelé loolu ba tey ndox bi nekk lu nga xam ne tey sunu préoccupation majeure parce que ak école mënul am amul amul ndox dara mënul am fekkee amul ndox donc ñu yaakaar ndox mi c'est la compétence première de toute communauté humaine moo tax ñu si liggéey kon loolu dañ si di leen si gërëm parce que mënoon nañ ne dëgg nañu seen dañu bëgg privatiser cette station yi comme ça comme lolu jartu ñu mais ñom comme ñun dañu gëm ni que ñun dañuy liggéey rek privatisation depuis plus de 20 ans am plus de 30 ans et ces associations ndox ñu ngi dox par la communauté communauté bi mu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib ndox bi sel ndox bi bari ñooñu laaj ñu ñu war pour gën a dama ni man ndox stratégie kenn war privatiser ça supéré la défense devant n'importe qui que la question de l'eau c'est une question de souveraineté nationale vous vous privatiser vous demain, demain est- moi des kan dessus mais ñu yore station yi si nekk seen biir dëkk dañu koy defar pour seen bopp d' abord dafa duñ pour keneen dafa ñëw pour jaay dañ koy def pour seen bopp comme ñooñu gën a yelloo war a mën a yore seen station bopp kon foofu tam aussi ñu ngi gën a ñaax yi nañu gën jàppale population yi station yi gën mën a dox pour que ñu gën a war a mën a euh, liggéey parce que ñu ngi bi 30 ans ñu ngi liggéey amul benn problème seen station panul seen station ñàkkul ndox amuñ benn jafe-jafe kon ñooñu jar nañ jàppale ñu test leen xool ñii fu ñu jëm ndax fu ñu jëm baax na bu baaxee ñu war ko généraliser au niveau du Sénégal jërë merci monsieur le maire merci. xanaa di si kontaan rek di ko remercier aussi ndax sonnoon nañ pour am ndox. daan nañ am jafe-jafe yu bëri ndax dañ dan toog fi su tawul lek duñ mën a sax noppaliku ndax dañ doon baye ba mu taw ñu dem ci kii nii yi si waaw di si kii nii di si di si ba fi diko ko kii mu tuddati ci diko seggi pour ñu mën am luñ toggee. sori na kay sori na parce que mën nga fi jóge ay huit heures balaa ngay ñëw tombeek dix heures jot waaw xam nga loolu dafa metti ba pare nga nekk si añ nekk si añ ba pare jóge foofu dem ba kër bi nekk fële wut jaar ñu mën a am foofu benn siwo ndox bu tuuti ñu mën am lu luñ naan noonu lañ daan def ah tey moom jafe-jafe yi jeex na kontaan nañ macha allah.